mu jot ci bàyyi quatre kilomètres carré yoo xamante ne nii ci turu sëriñ bi la ne waaye loolu yàqalu ko dara nag ci démarche yi mu doon def ci yoonu saxaar gi mooy dañoo daal di bind ab demande yóbbu ko conseil privé Bouna Albouri porté ko ñu yóbbu ko conseil privé ak Masourong euh, bi nga xamante ni dem na conseil privé mais bi ci réunion ñu ni ko léegi danañ ko yóbbu mooy danañ ko envoyé France ko jaarale ci ministre de la colonie mu dem France léegi su fekkente ni ni nguurug France nangu na ko incha allah dana dana jàppande ñu envoyé demande bi mu dem sëñ du toog ab diir ñu woowaat ko ci kër commandant Diourbel mu dem wuy ji ñu xamal ko ni ko am nañ réponse retour bi mooy d'accord nañ ci yoonu saxaar gi waaye ci ay condition condition yi nga xamante ni nii ci la yëf yi di mën a sottee nag yu bare bari la ci jiitu mooy tubaab yi wax nañ ko ni ko léegi kat foo koy def muy diggante njaareem ak Touba war tollu ci juróom fukki kilomètre ñu ni ko suuf soo si muy jaar suuf si lépp murit yi moomuñu ko su jaaree ci toolu jàmbur nag te boroom soxla ku ko dédommagé yaa koy yaa koy fay sëñ Modou d'accord ak ñoom ci acte boobu ñu wax ko itam ni ko cinquante kilomètres yi kilomètre bu ne deux cent mille lañ ko xayma boo ko boolee total bi di 10 millions sëñ Modou d'accord ak ñoom ci acte boobu ba tey ñu waxaat ko itam ni ko ouvrier yi nga xamante ne ni ñoo koy liggéey ñu ni ko ouvrier yi nga xamante ne ni ñoom tubaab yi ñoo leen yilif dañ leen yóbbu Madagascar kon amuñu ay ouvrier yoo xamante ne ni mën nañoo impliqué wu ci travaux semaine de fer Diourbel Touba léegi yowoy wut ouvrier yi sëñ Modou d'accord ak ñoom ci loolu ñu ni ko seenub lim mi ngi tollu ci junni nit ak juróomi téeméer ñooy lim bi ni ko noonu nag ay technicien rek lañ lay jox dañ la jox ay technicien lu toll ci douze personnes yoo xamante ni ñooy yor liggéey wàllu technique benn commandant bu ñuy wax Samonac moo leen jiite moo yor travaux yi junni nit ñooñu ak juróomi téeméer dañ ko wax ni ko itam seenub dund yaa koy gàddu sëñ Moodu jubóog ñoom ci gàddu dund bi ñuy tubaab yi itam waxu nag dund bi du cere ak laax te booba xam nañu mooy li gën a jàppandi ci réew mi waaye ceeb lay doon bu ànd ak ndawal ak diwlin sëñ Moodu d'accord ak ñoom ci loolu ñu calcule ko benn personne bu ne trois cent grammes ceeb yoo xamante ni moom lay am par jour loolu buñ ko seetee ci mille cinq cent personnes yi ñeenti bari ko lay doon ak benn wàll bis bi set ca ceebu booba jamono jooja yu wax ko itam ni ko liggéey bi diire bi parce que tubaab loolu la xam ni ko juróom-ñaari at lañ lay àppal su fekkente ni ni lëggéey bi noppiwut noonu dañuy bàyyi te duñ la delloo duñ la remboursé dara ndax dañu am yeneen occupation yoo xamante ni ni ca lañu war a dem sëñ Modou jubóog ñoom ci loolu ñu wax ko itam ni ko mbooloo miñ fi dajale su ci amee kenn ku tooñ ba yoon di ko topp ci yow lañ koy àtte ndax yaa leen fi dajale mu jubak ñoom ci loolu yooyu di di ay conditions yoo xamante ne nii sëñ Modou nangoonte na ko ak tubaab bi jamono yooyu itam dafa fekk nag mooy li ma waxoon léegi mooy sëriñ bi dem na crise baa ngi dugg si muy crise année des trente nga xamante ni ni ràgg ak ràmm ak rafle yooyu yëpp sëkkatal na réew mi ba feeñ na ci wàllu économique bi Jurbel googu itam jafe-jafe yi commencé na di nuyoo ndax impôts yi leen tubaab yi daan fayu commerçant yi dem nañ ba jafe-jafe di am fay gi day jafe lool ba tax ñoom sax revenu nan ni léegi xam nañ ni sëñ bi fu mu nekk yaramam soof du ko yàq léegi dañoo bëgg a jëli sëriñ bi guddi jël si ko Touba andi ko njaareem denc ko fa bu ko defee njaareem delluwaat fa nekkoon ci wàllu koom wàllu économique nam doon doxee mu delluwaat fa ndax njaareem bi fi sëñ bi ne daanaka moo gën a dox ci commerce ci réew mi euh, sëñ Blaat nee na biñ koy wax loolu nee na maa ngi toog ci jataay ba sëñ Moussa dafa ràbbale ni ay loxoom rek ni leen ah, loolu rek moo ci seen xalaata ñu ni ko waaw mu ni leen ah néew ma du de waaye su dee am moom sama bakkan bi du ko fekk sëñ bi daal déetuma nangu mu ràndu jëm fenn kon jafe-jafe amoon na bi nga xamante ne nii sëñ du jóge na ci kër commandant bi nag fa ñëwaat ci boqatul mubaaraka muy kër gu mag dajale njaboot gi wax leen barab boobu yi mu demoon liñ ko wax partagé ko ak njaboot gi dajale kilifa yi yoon wi wax leen ni yoonu saxaar kim doon lijjanti te mel ni dafa xaw a jafe suñ borom a ngi ciy dugal ak jàppandal ba tubaab yi nangu nañ ko ko waaye ci condition yi lañ wax ñu wax condition yi lépp Cheikh Mouhamadul Bachir ni ko léegi eh, am naa ci xalaat ci ni mbooloo mi muy kilifa yu topp sëriñ bi nga xam ne ay seex lañ bu ko ne joxe juróomi nit liñ bëgg dana dana ko man te du diis ci kenn waaye dafa mel ni xalaat booba doxut ndax xëy na nit ñi rafetu njott ci ni sëñ Moussa lii mu engagé wu dana ko man te nit ñi itam ñemewuñ tubaab bi à cent pour cent ndax gis nañ fi mu jaar ak sëriñ bi ba tax na daal tekk ji moom xaw naa doy waar ci jamono yooyu Cheikh Ibra daal di joxe juróom-ñaar téeméeri góor yàlla juróom-ñaar téeméer la daal di joxe ca saasa moom ci njabootam nga xam ne ay doomam a nga ca ak taalibeem te wax nañu sax ni bëggoon naa joxe lépp waaye sëñ Moussa moo ko wax ni ko liggéeyub sëñ Tuubaa mu kenn du ko akimoo da ngay bàyyi ñeneen ñi ci des ñu def ci sëñ teg ci téeméer sëñ Amsatu Lo bu Ngaabu teg ci téeméer juróom benn téeméer yi ci des génn ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ak njabootam te njabootuk sëñ bi booba ñi ci mag mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha ci mag Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Baara sëñ Basiiru sëñ Abdullahi borom dër bi booba ci ñaar fukki ak ñaar la toll daanaka ñi ci des ci ñu taxaw leen ñu jàng lañ toll ndax Cheikh Ibrahima Cheikh Abdoulaat ñooñu boobu daanaka ci 14 ans lañ toll jëm suuf kon liggéey bu difficile la boo xamante ne nii. caaxaan defu ko te it booba yoon wi demeegut nii mu demee nga xam ne wërsëg nuyu ne leen ci luñ bëgg a def man koo def waaye booba yitte ju kawe ak pas-pas ak xam ki ñi liggéeyal rek moo tax luñ song man koo daane ci loolu la liggéey bi di démarré sëñ Moussa sax teg na ci ni tubaab yi buñ ma waxoon ni ma da ngay solu soldaar diggante àpp sàngam ba àpp sàngam ma solu ji soldaar ndax liggéeyal sëñ Bàmba jaral na ma ko bi nga xamante ne nii bindu liste boobu noppi na tubaab yi dañ ñu ko dañ fi ñëw xool si cent personnes yi ba xam nu mu tëdd ndax du n'importe kii lañ soxla am ay nit lañ soxla yu am jëmm te am kàttan mën a liggéey ndax liggéeyu suuf la biñ dikkee benn tubaab la ak benn nit ku ñuul ku ñuy wax Jupiter Ndiaye ñoom moo ànd ak ñoom ñëwee dañoo xëy di rappel ba ngoon jot ñu bàyyi ca suba suñu xëy di rappel ba yoor-yoor bi dëgër mu door a mat tubaab yi ni ko nii léegi nii baax na ñu daal leen di xaaj ay ay ay groupe groupe bu ne quarante cinq personnes lay doon quarante cinq personnes yi day am benn chef d'équipe day am benn gardien am ab convoyeur am ab tousigne ak planto quarante personnes yi ci des pic ak pelle la ñuy yor waaye noonu lañ koy xaaje